booy baana yi li ñuy def dafa yomb ñëw ñu tànnal la xama di leen jox ay ganaay yoo xamante ni di jox suñ ganaay loolu mu mënul ne suñ garaay tamit maa leen di jox message ñun da ngeen ñu bàyyi ñu bëreeg ñu ñu war a bëreel suñ ñu ñu war a bëreel soo leen bëreeg ñoom ñun kañ la ñuy bëreel. ganaay sa ganaay bool wala. ganaay bool yi suñ ganaay message boobu maa leen ko ñaan ñun ñun ñun ñu war a bëreel soo leen bëreeg ñoom ñun ñan la ñuy bëreel booy ñun ñun suñ demee di ñaan chance ñoom dañuy bañ duñu may chance kon yéen su leen nangu di leen may sens loolu maa leen ko ñaan bu leen fi may benn booy sens na ñëw ñu bëre ñun ñoo doon seeni morom barke alxuraan. kon su ma déggee sax Bour Sine li mu may neexu la. non neexu ma Bour sama grand la bu baax la mais dafa jox booy bi loxo si toro barke alxuraan ñaam man ak moom la te billaahi wallaahi boo ñu suufle woon barke alxuraan ko maa ko mën fuuf. lim def sa garam mënuma daan. man xale laa bu ndaw bari doole yenn booy sax wow la ñuy wax barke alxuraan ñaaw ndaw so ma ko joxoon dama daan jël bu rëy ñaaye mënoo ma daan barke alxuraan géejawaay amul mbër mu mën a daan géejawaay ba géejawaay daj amul mbër mu mën a daan géejawaay nga wax cët ba cët géejawaay ba géejawaay daj amul mbër mu a daan te ko daan samay grand dama lay daan muy Youssou Ndour muy ñaabu ndaw yéen ñëpp booy bi mi ñëw seen kaw la jëm yéen ñëpp. kon dafa mel ni Fils de Katy xel mi dafa nekk si ku ko dóor timis gée mu fayu. dëgg lu ma la ñun bool min rek lañ am barke alxuraan te drapeau bool ak drapeau min moo ñor. billaahi. nar ngaa faj mer lu ma la ku daan samay grand frère damay ñëw dama lay daan loolu force la maa mën maa ëpp doole te maa gën a féete xale barke sëñ Fallou Bourgine. yow bu la dara metti booy bu ndaw mi ngi ñëw lépp la lay fajal Mor Youssou Ndour Fils de mi ngi ñëw xam ma man naa la drapeau bool mën naa la ay xeex awma feneen fu foofu te nañ ma jàppale dama bëgg ñu jàppale ma parce que ñun man instant yii nii làmb toll naa si foo xamante ne nii jamono ju may wax yow nii waratuma foo si làmb parce que man gis naa la làmb instant bi dama si am cër. te cër boobu noonu dama koy jëli ji. Cheikh dafa am kàddu goo wax sànq mu xaw ma jaaxal nga ne géejawaay amul ku la fa mën a daan. géejawaay ba waaye daj maa fa mën soo déggoo ma amul kii amul kaa ñoom ñëpp maa leen mën. bu mu daj maa leen mën. problème yaa ah, ngi soog a ah. barki Seydou Naamar kañ ngay comprendre ma tëj ñu tëj ñu booy ci baleer yi. loolu tamit war na gaa loolu ay wax la rek ay géej waaye dañ sonal bool ay nii ne naa. Balla Gaye daanu sa mag. daan man bala Balla Gaye rek wala mu la wax. daan laa gënoon bëgg si làmb mais man bool rek laay topp ak maintenant. ñaaw bu ndaw këppaat na seen lu ma la booy bu ndaw mi ngi yegg si. dañoo këpp seen réer këpp seen i réer barki alxuraanu karim fii laa koy waxee bool bool yi ngeen di dégg ku daan samay mag dama lay daan incha waa bool jàppale leen mag waa Minna billaay wallaay talaay man ñaari gox ñoo mat garaawul sëñ Fallou yàlla baax na yàlla saa borom doli sutura rek. këpp nañ fi ay cere baas yi ay mbuxam sa lépp ci këpp <laughs> nañ ay ay cerebaas la ñuy tuur ay mbuxam sa nañ jéem a tuur ceebu ginaar bi lu neex la lu saf li ku ñëw dañ lay rey amuñ ku ñuy bàyyi na ñëpp ñëw dawuñu kenn ku ñëw si làmb gi booy bi rey la. dégg mu ne géejaay moom moo fu mën. mooy ceebu ginaar bi instant waa géejawaay kii bi la ñuy tuur nii de cerebaas beeg mbuxam sa bi sombi bi jëm leen tuur ceebu ginaar bi mooy nii boo leen ko tuuree muus yëpp jiiroo xaj yi ñëw tuur ko. waaw ah, bu xees loolu moom moom xam na lu mu yor moom du ngaaxa